kon ñoo ngi leen di gërëm di bàyyi xel tamit jàmbaar jooju nekk fële ci France ci Paris Saint-Germain tudd Idrissa Gana géy di ko wax ne ko sunu soutien jotal nañ ko ba noppi ndax suñuy relation may nañu ko waaye coalition les serviteurs ñoo ngi koy yokk doole di ko wax ne ko dinañ nekk ci sa wet jamono bu ne noonu lañ koy defee tamit ak sportif yépp ndax monde sport am bokk na ci monde bi ñu gën a fàtte monde sport bokk na ci monde bi ñu gën a fàtte surtout ñi nga xamante ni ñoom ñooy def sport individuel ñiy def sport individuel fàtte bu ñu leen fàtte yéeme na mënuñu leen sax organiser organiser bu am solo bari na ci ñoom ñoo xamante ni tey jii bu ñu dem compétition seeni ñoñ ñoo leen di dajaleel pour ñu mën a dem bari ci ay champion yoo xamante ni aujourd'hui dans des disciplines individuelles daanaka dañ bu ñu feebaree sax mënuñoo faju te ñoo ngi ci réew mi xam naa ci ñu bari loolu du bëri na ci sénégalais ay ay ay sportif yoo xam dinañ dem am raaya suñu ñëwee kenn du leen dégg ndax sport individuel la ñuy def donc boo njabootee nag da ngay njaboote ñëpp